seen yoon it da ngay gis ne lu yéeme la masalan lu mel ni jant bi am na fukki yoon ak ñaar yoo xam ne nii moom lay jaar loolu yi mën ngeen di dégg bélier balance capricorne ila axir ñooñu liggéey ci horoscope moom la ñuy wax bu juddoo bis sàngam bis sàngam jéeg yi ci seen caaxaan yooyu ñuy wax ala kulli xaal suñu borom moo bindi di diw rëddal leen ay yoon yoo xam ne duñ ko génn kullun fi falakin yasbaxuun muy wane it yàlla moomu moo la bind yow rëddal la aw yoon soo bëggee am jàmm jàmmal na nga nekkal jaara ci yoonu yàlla woowu borom boobu waat ci àllaaxira bi nga xam ne moom lañu dig boole mi jaamam suñu borom waat ci aji seede ak la ñuy seede wax nañ ci fukki wax ak nangam ala kulli xaal aji seede moom mooy kuy seede rek nañ ko delloo suñu borom mooy seede bu mag bi yeneen ci ay seede lañu doomu aadama bi xatta say cër sax dañ leen seede yowmal qiyaama mashhud mooy képp ku ñuy nar a seede ëllëg noonu bokk na ci li te génnee borom bi indi li ñu tuddee xissa asxaabul uxduud ñëw na ci saxiixu muslim yeneen ci bàyyi salaam ne ci xeet bi jiitu woon fassiroona yu bëri dañ ne loolu mi nga amoon ci yaman suuf ci Arabie saoudite benn buur moo fa nekkoon mbëru comme ni Firawna mbëroo woon jàpp ne moom mooy yàllay xeet bi moom rek la ñu war a jaamu moom la ñu war a jéggal léegi mu amoon benn seetkat ab kaahin tudde ko ab saltige wala loo ko mën a tuddee koo xam ne moo ko doon seetal di ko wax xabaar yi nar a xew kookee dem ba màgget daa dina ko buur damaa màgget ngay jël xale bu yeewu di koy yónni ci man ma jàngal ko naka lay def ay ba mën di jokkoo jinne yi bay mën di xam xabaar yi xew buur bi jël benn xale bu yeewu boole kook moom xale bi bu jógee ci kër buur di dem ca seetkat ba kaahin ba ci yoon bi mu romb benn labbe boo xam ne mi ngi beru ci ruqam di jaamu yàlla te loolu bëri woon na ci labbe yi démb yow amaan islam moom bi mu ñëw def ne loolu moom bokkul ci islam mais rawatina ca saanu labbe boobu yi sabnu Maryam bañ ko jàppee ba ko rey te yàlla yëkkati ko ba am keneen kuy jàpp sax rey ko sa place labbe yi ko waroon dañoo daw tasaaroo wala sax ñu ci bëri daan làq ca àll seen taali bi ñëw di leen roy ci loolu naam léegi mu gis benn labbe mu daldi sa labbe bi waxtaan ak moom labbe bi woo ko xamal ko ne yàlla kenn la isa rasulullah la yàlla la ñu war a jaam muy jàng ci moom bu fa yàggee dem ca kaahin ba kaahin bi na ko yow fa nekkoon dóor ko dóor ko ba mu sonn bu ñëwee ci njabootam ñu ne ko waaye yow lan moo tax nga toog ci àll bi ba léegi dóor ko labbe bi na ko boo demee kee ci la ci këriñ bi da nga naan ko sama njaboot ñoo ma soxla woon yeex maa bàyyi soo demee sa waa këriñ nga wax leen loolu te loolu la ñu tuddee ak taqiya mooy doomu aadama la ngay wax ba mucc ci lor bu ñu lay lor lool yi islam bañu ko xale bi def noonu bu jógee ci gàttal daal bu waroon ne une heure de temps ah trente minutes yëpp ca labbe bi la koy def trente minutes yi mu def ko ca kër gi labbe bi di ko jàngal di ko jàngal ba mu xam diine mu ne ko nag ñu ngi noonu yàlla def benn bis xale bi génn di dem ca seetkat ba rek am benn bàyyuma bu ñàng ñëw nekk ci yoon bi dëkk bi doon génn kenn ñu ngi mun a génn ndax bàyyuma boobu nekk foofee xale bi nag ne tey lay xam ndax mbiru labbe bi ak mbiru kaahin bi xanaa lan moo ci gën a jóg daa dina yàlla su dee ne labbe bii li may wax muy dëgg yàlla nag ma kattanal ba ma rey bàyyuma bi jël benn xeer dem rek attaque ko dóor ko rek bàyyuma bi nag cadd cadd daal di dee loolu bi mu ñëwee ah waa dëkk bi yëg loolu ñun ñëpp daal di yéemu ci xale bi commencé ñëw ci moom da koo ñaanloo ku mu ñaanal rek lam la ñaanal day am gis ngeen lam la ñaanal day am ba mu demee wax ko labbe bi labbe bi ne ko lii yàlla jaare la ci yow de daañu ñu fitnaal waaye nag ngallaawaay bi ñu fitnaalee fexeel ba man bul waxtaan bul waxtaan mbir yaa ngi dégg xale bi xale bi dem yàlla dogal kenn ku doon toog ak bóor bi dafa silmaxa bi mu déggee xibaaru xale bi kat comme ñaanal ñaan gi nangu mu ñëw ci moom ne ko ngóor si fajal ma sama bët yi mu ne ko man dama faj yàlla muy faj soo gëmee yàlla yàlla faj woo ko ci diine nasaraan te moo doon lislaam jamono joojee expliqué ko waa ji daal di seede loolu bët yi ne xefet ubbeeku mu daal di dem ca buur bi mu ñëwee toog mun na ko waaw yow lu delloo say bët mu ne ko sama borom mu ne ko man mu ne ko déedéet sama borom yàlla mu ne ko da ngaa jàpp beneen borom bu dul man mu laa ko gàdd yi jàpp leen yow ñoo jàpp ko di ko mbugal bam ne xale bi moo ko ñaanal ba mu wér bóor ba ne lañ jëli xale bi biñ jëlee xale bi ne ko waaye yow lii foo jàngee sa mbir yi xale bi ñu koy mbugal di ko mbugal ba mujj mu expliqué boobu na ko man boobu te lii ngay nekkee du du diine du ay caaxaan la yàlla mooy expliqué expliqué ko de fi mu jaar ba wax labbe bi labbe bi buur bi na ko ah dem leen jëli labbe bi ñu dem jëli labbe bi buur bi ne leen léegi da ngeen di génn ci lii ngeen nekk wala ma rey dem leen ñu ne ah de ñun koy loolu téye ñu ko gënal moo woo gar bi ñu jàpp bëkk néegam bi nga xam ne mooy gis léegi suuf ci suuf ay tànkam indi ak ci teg ci boppam génnal ci diina mu bañ ñun fiye ko ba xar ko ñaar fiye ko ba xar ko ñaar daal di woo labbe génnal ci sa diine bi ngay wax mu ne dee ma ko gënal ñu gas ma mi fiye ko xar ko ñaar léegi mu jël xale bi na ko gis nga boo génnal ci diine bi dama lay rek xale bi na ko man daal du ma génn ci diine bi mu ne fii leen ñu fii fii affaire bi jàll mu ne fii ak njabar ngay ne de xamul ngeen def yóbbul leen ma ko ca kaw montagne ba kaw kaw ngeen duma ko lu mu jabar jabar dana dee gaa yi ànd ak moom ban demee ba ca kaw xale bi ñaan yàlla montagne bi na gërëm gërëm gar bi yépp juuru daanu dee ñoom xale bi daal di wàccaat ñëw buur bi boole ko ak ñeneen ñoo xam ne dañu nañ ko ko yóbbul géej bu ñu demee ba dëgg géej ñu daal di takk ko sànni ko foofee bañee dem ba digg géej ba xale bi ñaanee gaal dina jël géej ñoom ñu ànd ak gaal ga suuf xale bi moom daal di fay géej ñëw buur bi jiimu ci loolu mu ne ko mën a buur mën nga maa rey de mu ne ko ah naka laa lay rey mu ne ko su ma bëggee rey da ngay dajale dëkk bi yépp ñu taxaw su ko defee nga jël benn fit daal di ne bismillah rabbul gulam maa ngi sànni ci turu yàlla mi boroom xale bi soo ko defee rek danga ma rek buur bi ne kon baax daal di woo assemblée générale ñépp ñëw biñ ñëw mu taxawal xale bi bi mu jëlee flèche bi daal di ne bismillah boroom xale bi fekk rek flèche bi dal ci la nga xam ne mooy sampam bi fii ci gannaaw bët bi xale bi daal di daanu dee waaye xamul politique bi xale bi bëggoon waa réew mi yépp daal dina aman na billahi rabbil gulam day gëm nañ yàlla muy borom xale bi gis ngeen loolee buur bi daal di mer daal di woo gar bi ña fekke woon foofu yépp ñu jàpp leen tëj leen yeewu leen génn leen seen wax bi ay góor jigéen ñu ne duñ ci génn mu ne baax gasal leen ma benn ngaareel li nga noonu ñu gasal ko benn fossé bu rëy mu ne uti leen mag ñu taaru ko ba mu xonk cóor ñu leen di indi par benn da ngay génn ci dine nasaraan wala nga dugg ci sawara bi mu ne sawara bi ñu gënal ñu ba max mu dem di ba max mu dem suñu borom mu ne góor ak jigéen mu'minin wal mu'minat waaw yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam nee na am na benn jigéen bu mbootoon doomam mu ne waaw boo xanaa xale bi kay moom deful dara xale bi ne ko yaay demal lii muy def mu ànd ak moom ba ci sawara lii mbokk da ngay gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko nekk li ci xeet yu jëkk yi ci yàlla jaar ak ñoom léegi nag suñu borom di nekk histoire bi mu ne qutila ashabul ukhdud qutila ay rëbbiis na leen mbugal ak dalali ñeen mooy ñooñu gasoon pax ma pax moo xam ni dañoo jël ay matt sarte ba mu fees daal di taal léegi nag ñoom ñu toog di seetaan buur bee ki notaa ba ñoo toog di seetaan ñuy jël jullit ñi di leen lakk lakk boo xam ni ñoom fekke nañu ko te moo ni de ñii du ne dañoo rey nit du ne dañoo lekk alal jaaluwul dara lañ jëful lu dul gëm yàlla mi nga xam ni moo not lépp yàlla mi nga xam ni cant yépp ci moom lay dellu te bokk yàlla muy alxamid suñu war a sant ci lépp loola tax julit gëmal fu fexeel fu la xéewal bi dikkale ngay wax alhamdulillah alladi bi niamatihi tatimmu salihat mooy ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne ci xéewalam lay mate lépp lu yiw heure bu la natt dalee alhamdulillah ala kulli xaal del wax sant ñeel na yàlla ci lépp lu ma mën a féetale mi ngi noonu borom boobu muy moo ne day kooku ñu gëm ba tax ñu koy ñu leen di mbugal mooy ki nga xam ne moo moom ngóorub asamaan ak suuf te moo ne day fekkee ne ba ñu lakk ay jaamam mu toog di seetaan bokk mi ngi noonu suñu borom yàlla nee na lépp mi ngi koy seetaan loolu di ak tëkku di yaakaar mooy ay ak saay saay lépp lu muy def yàlla mu ne maa ngi koy gis waaye jullit yi yow gëmal ne lu ñu lay def yàlla nga koy gis lu tax yàlla kon nga seetaan sa jaam yu baax yi ñu leen di ah mbugal ci safara bi borom bi ne waaw ndax ñooñu nga xam ne dañoo gëm wala boog mu wax ci ñi nga xam ne ñii dañoo ah mbugal gaay yi ñii nga xam ne dañuy mbugal ay samay jaam yi dañ maa rawagul rawaguñu rawaguñu moo tax ma seetaan de ñii mbugal jullit ñi góor ñi ak ñu jigéen ñi kay suñu tuubal kay suñu tuubal day sawara moo leen di ñeel muy jëhannam mbugal mu leen di lakk comme ni ñu lakk sama jaam yi mi ngi leen di xaar mu gaa yi aay bi yéemu leen a waay ñu jàpp jaamu yàlla yi góor ak jigéen taal leen du ne dañoo def benn jëf lu dul dañoo gëm yàlla suñu borom ne bu ñu tuubal ba tax nga gis ne mbokk yàlla dafay saar ba mu ne mooy alxafuur alwadud muy kii bale bépp bakkaar bépp bakkaar boo def ak lu mu garaaw garaaw boo tuubee yàlla baal la yeneen ci bàyyi salaam misaal nit yi koo xam ne moom kese rey na téeméeri yi mais ba mu tuubee yàlla da ko baal ñu ngi noonu suñu tuubul loolu it moo tax ba yéen a ngi fàttaliku xasatu Uhud bi ñu koy nekk di ci yàggul dara mooy ñëkk a jiite woon ñëpp rey saxaaba yu rëy bàmmeel yooyu ñuy jaar ci Uhud yëpp ña leen rey ñoom ñëpp yàlla da leen a baal ñu mujj tuub dugg ci lislaam loolee kon ñu gis ne mbokk mujj gu rafet mooy li am solo te it jaam bi foo toll war ngay góorgóorlu di tuub léegi ngay gis ay nit ñoo xam ne dañuy dem ba jàpp ne li ñu def ci bàkkaar daal ñu mënutuñu baax li ñu def ci bàkkaar mënutuñu baaxati mbokk nag loolu loolu loolu loolu njuumte mënu koo paas mi ngi noonu njuumte mënu koo paas am na ñu benn góor gu ma Cheikh Lo di ñett bi góor gu xawoon doy waar ndax jamono bi yàlla nattoo suñu maam yi peste ñëwoon ci réew mi dafa bokkoon ci ñu daan jox ay tig ñi ñu farke ñu am feebar bi ku ci dee ñu daal di lay lëmas suul la comme jamono jooju nag fii si daa manqué nee na bu banqué day ñëw xool bi gis càngi càngi bu xaw a sonn rek mu daal di jiri mu naan ko bàyyi diw déewu ba ma déewu ba ma mu ne ko xaral daal di jox tuur daal di dem ne tubaab bi am na ko jeex ñu jox ko juróom-ñaari mesure percala mu dem jaay yaa ngi dégg léegi nag dinaan wax ah man de sama yéen niw xam naa ne sawara lu xat-xat am naa ko place lu ma neex def yaa ngi dégg mais mbokk kooku daa dañu na ko ko waar rek loolu muy def li mu bon bon bon bon wallahi mu tuuboon yàlla baal wallahi mu tuuboon yàlla baal moo tax suñu borom ne ñii day def lii bu ñu tuubul mbugalum sawara moo leen di ñeel loolu mooy question bu njëkk bi mooy pourquoi yàlla seetaan ay mun ñoraw yàlla beneen question bi mooy lu tax nag yàlla nga seetaan sa jàng ñoom it ñu rey leen ci dimbali woo leen tontu boobu la suñu borom bi ñuy wax léegi
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن ربك ربك لكريم إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
suñu borom mu ne inna alladina amanu ñoo ñi nga xam ne nag dañoo gëm wa amilu salihat te jëf-jëf yu yiw yi de lahum jannatun tajri min tahtiha al anhar dana leen ñeel jardin yoo xam ne dana daw ci suufam léegi nga xam ne moom mooy jaxiya zalika al fawzu al kabir loolu day mooy texey bu màgg ba inna batsha rabbika la shadid lii di sa jàpp borom day lu tar la innahu huwa yumliu wa yuid moom day mooy aji sos mooy aji baaru lam sosoon wa huwa alghafuru alwadud mooy aji kuy jéggalaate mooy aji kuy sopp ay jaamam zul arshi almajid mooy borom aras bu màgg ba faalun lima yurid mooy aji def la nga xam ne moom rek la bëgg hal ataaka xadisul junud ndax dikkal na la ar waxtaanu arme ya firawna wa samud arme firawna ak waa samud bal alladina kafaru fi takdib waaye li am day mooy yéefe yi dañoo nekk ci ak wet gi rek wallahu min waraihim muxiit doonte ne su borom yàlla ci seen gannaaw ku leen peeg la bal huwa quraanun majid lii day nekk lu dul alquran ju màgg mi ngi noonu fii law fii lawhin mahfuuz nekk ci àllu woo da nga xam ne dañ ko dañ ko wattu mi ngi noonu mbokk jullit ñaa ngi nii ñuy jàpp leen di leen sànni ci sawara bi suñu borom yàlla seetaan mu ne na am ndax ñoom sawara moom buñ ci tàbbee dañoo shahid dañuy daal di dugg ci ay xéewal yàlla di leen xéewal ci barzax ba baa ñuy tabbi aljanna suñu borom mu ne texe yi gën a màgg mooy lii te ñoom ñi dee fi sabilillah suñu borom yàlla mu ngi ñu koy nekk ci Ali Imran ne yastabshiruuna lilladina lam yalxaqu bihim allaa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ña ngay kontaan ci xéewal mi leen yàlla di jox di dégg naan gaa yi nekk seen gannaaw noonu la de fexe leen ba dee ci yoon bi te loolu mbokk da ngay gis texe gëm ta màgg nga dee fekk dañ laa rey fi sabilillah jullit da koo war di ñaan yàlla yeneen ci bàyyi salaam ne ku ñaan yàlla dee ci yoonu yàlla te muy dëgg ci yow même boo dee sa kaw lal yàlla boole la min shuhada yàlla na yàlla boole ñi nga xam ne dañoo shahid borom bi nee na zalika al fawzul kabir loolu mooy texe bi gën a mag léegi nag mu dellu siwaat ci gaa yi nga xam ne ñoo doon mbugal ay gaa yi mu ne xam leen ne su ngeen tuubul de ah seen mbugal seen jàpp borom na sar la na am ñoom jàpp nañ jaamu yàlla yi mbugal leen mën na am biñ duggee ci sawara bi même pas dix minutes dee na ñu terminé yëgatuñu dara am naa sa borom yàlla ku mu jàpp ba lay mbugal moom ci biir sawara doo fa dund doo fa dee da nga koy yëg xaalidina fiha abada borom boobu mu ne xam leen ni moo sos lépp lu am moo koy baabu yowmal xiyaama te ni la yàlla bindee nga ñëw ci kaw suuf bis boo demee rek poussière dana la delloo waat dara bu manqué ci yow jàng nañ ca gannaaw qaadirina ala an nusawiya banaana xatta sa cati baaraam bi ak say empreinte dara bu manqué borom boobu subhanahu wa taala nag moom mooy kiy jéggalaate alxafuur mooy kiy suturaal mais far arab lañ koy wax kas yi nga xam ne day muur sa bopp comme ni borom moto yi di def nii nga xam ni boo daanoo yi kas yu protégé la suñu borom noonu lay def jaamam da ngay nekk kaw suuf def ay njombe yu rëy yàlla suturaal la kenn ñu ko soo demee allah ci rek yàlla dana la woo fàtte li la la nga doon def ba nga xam ne yàlla xamoon na ko mu suturaal la doog la baal te noonu am maa suñu borom it muy alwadud sopp jaamam yi nga xam ne dañuy jëllu si ci moom pour mu baal leen yonent bi alei salaam indi ci misaal boo xam ne misaal bu la ko féete kaw nee na yàlla nit ñuy kontaan ci jaamam bu jub dellu si ci moom mi ngi mel ne kenn ci yéen ku doon tukki war benn waruwaayam def ci lekkam def ci naanam jaar ci benn désert waruwaay ba daal di koy rëcc mu seet ko seet gisu ko mu dem gis benn taatu garab mu ne ne fi toog ba dee fekk ko fi ndax mënul traversé désert bi amatul lu rek amul lu mu naan nee na ni mu tëdde noonu mel na ku nelaw yeewu rek gis waruwaayam bi daal di koy tiim mu jóg jàpp ci buumu buum bi mu ko ngalaate woon kontaan ba ne cey yàlla yaay sama jàmm may sa borom yaa ngi dem ñu la ko yeneen ci waxee mu ne kontaan te boobu moo am boo toll bu raw loolu la yàlla yi am ci jaamam ngir yàlla buggul mbugal ay jaamam képp ko mbugal rek yow yaa fekkeerlu yow yaa dëgër bopp waaye yàlla buggul mbugal ay jaamam toujours mi ngi woote kuy tub ma baal la kuy tub ma baal la tant que sukkuraatoo boo tubi ma baal la ubbi na bunti tuubam tant que jant bi fenkwul sow ku tub ma baal la muy alxafuur alwadud borom boobu nga xam ni mooy zul arsh almajid bokku arsh jël da ngay gëm ne sunu kaw ay asamaan fi nekk suñu borom nee na juróom-ñaar la gannaaw koo asamaan yooyu kursi moo fa nekk gannaaw kursi arshi moo fa nekk arshi boobu suñu borom defere ko ci ay façon matière yoo xam ne ci al yaqut al marjaan te taar boo xam ne ak yaatuwaay boo xam ne kenn mënu koo misaal kenn mënu koo misaal ci yaatuwaayam ak taaram ak màggaayam almasir borom boobu nag nee na may def lu ma neex aha tey faalu li ma yéex mu gaa yi ndax gisuloo benn waaye nii masalan yeneen ci bàyyi salaam ñu ci wax yàlla dina reetaan ñaari nit kenn ki rey moroomam ba pare ñu ànd toog ci àjjana di waxtaan mu ne ko am lu ñu demee mu ne waaw ab yéexéer day jóge fële di jihaad di xeexal jullit dajeeg ab jullit rey ko gannaaw ba yàlla baal ko mu tuub dugg ci lislaam dee ci lislaam ëllëg noonu jil bi ñuy ànd tàbbi àjjana kon nga xam ne yàlla def lu ko neex mooy faaru li man nit waaye tamit loolu le contraire bi di amee gars yi yonent yàlla loo presque junni at mu koy woote doomam gëmul soxnaam gëmul kon koy yàlla def lu ko neex am de Firawna saay-saay bu màgge de yàlla dem ci biir palais jabar jam yor yàlla teet na ko dugal ko ci lislaam kon kay faalu li ma yurit li nga noonu loolu la jullit bi war a gëm jullit gëmal ne li nga am mooy sabab la waaye yàlla mooy dogal wallahi boo amee yàlla la soo fajoo wér yàlla la soo waajee tukki mu sotti yàlla la su la yàlla bu soxna amee yàlla la bu doom amee yàlla la lépp loo mën a ñàkkit xamal ne yàlla rek la xale sa moroomu jàmm nu laa xañ lu yàlla dogaloo ci yow yàlla rek ay xañaate yàlla muy faalu ni ma yurit loolu tax ci moom muy sukkandiku gannaaw ba nga xamee ne nii def nga sa war a war fa isa azamta fa tawakkal ala allah xam ne mooy def lu ko neex ni ngi noonu abubakar ibn sadiq radiallahu anhu inta la ci sukuraat benn dëkk doom ñëw na ne ko ah ah abubakar ndax woo nga ab médecin bu la ñëw seet mu ne ko waa médecin bi ngay seet na ma mu ne ko lu mu wax nee na inni faalu li ma yuhi yaa ngi dégg te lu mu wax mooy li ma teg bi yàlla ma ko teg nee na mooy def lu ko neex gis ngeen ne foofu la faatoo radiallahu anhu ala kulli xaal mi ngi noonu taalu li ma yuhi borom boobu nag di la wan ne mooy def lu ko neex mooy kon amoon na kattanu intervenir ba luy rey ay jaamam am déet benn xoolal jaamam bi Ibrahim yéewu ñu ko ba mu ne modd ñu sànni ko ci sawara di yàlla moo ne sawara bi ku nii barakan wa salaaman ala ibrahim am déet waaw léegi suñu borom yàlla bu ko neexoon sawara bee boor bi di dugal ay jaamam mu ne sawara ku nii barakan wa salaam waaye la ko neex mooy mu bàyyi leen ñu dee mu yóbbu leen ajjana léegi mu ne xanaa fàttaliku woo yéen waa samul ñooñu ñoo ëpp waa yeneen ñi dañ ko njombe gi waa samul ñoo leen ëpp kattan xamul seen jeexital ya montage yi doon yàq boo demoon tey ba Arabie Saoudite ñu woon la ko boo duggoon internet léegi gis ko Firawna kattan nga mu yoroon pyramide yi fi bàyyi tey ñu ngi doon boo demoon Égypte gis ko boo duggoon internet léegi gis ko yàlla tey ko ci jamono tey kon ñooñu ñoo ëppoon kattan teewul yàlla subhanahu wa taala mbugal leen kon bu yàlla seetaanee ñee ñu mbugal ay jaamam intervenirul ça veut dire que faalu li ma yuri moom mooy def lu ko nekk borom boobu nag subhanahu wa taala mu ne mooy ki nga xam ne yéeféer yi de ñoom dañoo nekk ci wet gi rek wet gi mooy di leen neex seetal ko lu ñu di ñu wet lu mu doon waaye de suñu borom mu ne mi ngi leen peeg peeg na leen ci xam-xamam peeg leen ci kattanam benn yéeféer du rëcc kenn du rëcc ñoom ñëpp kenn du rëcc dañ ko teewal yow mën a ko yaama borom boobu nag ne bal lii nga xam ne dañ koy wet bi quraanul majid la alquran la joo xam ne ju màgg la looloo tax ay ndigalam dañ koo war a màggal ay tereem dañ koo war a màggal te mbokk noonu la ñuy màggale alquran na am téere yu war da ko màggal respecté ko jox ko cër bañ koy teg n'importe où bañ ko yore n'importe comment waaye ñu xam ne màggal da ngay màggal alquran mooy bu la digalee nga def ko la tere nga bàyyi borom nee na majid la ndax waxi borom bi la jalla wa ala borom bi nag nee na loolu lépp mi ngi nekk ci lawxi mahfuz al te te seen borom dindi na ko te laxu laxu laxul mahfuz bi nga xam ne mboolem luy xew ci àdduna ba ilaa yi mi diin suñu borom yàlla bind na ko foote mi ngi noonu yàlla na yàlla defal ñu tawfiq ci dunya wal axira